boroom dalailul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaati sëñ bi comme Sénégal moom ku ne xam na ni jàngoro du fi jóg moo xam bu mu mën a doon ñi am rab nag góor bi am rab wala jigéen bi am rab hmm. waa rab moom nit ki day taxoog moom am rab boo xam ne daf koy yàqal mm-hmm. rab bi koy yàqal dana ko gàllankoor ci wàllu wërsëgam mm-hmm. ba lu mu dugg rek lu euh, ci gis njariñ lu mu dugg rek day xat ci moom mm-hmm. am na ñoo xam ne nu jàpp dara bu ko ne lu ñu jàpp dañ koy bàyyi fekk rab moo koy def lu ñu jàpp rek bàyyi ko lu ñu jàpp bàyyi ko am ñoo ne seen am-am du toog. Mm-hmm. am ñoo am dañ naan sama loxo dafa bënn. Mm-hmm. fekk yooyu yëpp rab dina koy def dina ñàkkal nit barke. am na kër yoo xam ne sax da ngay dégg kër yoo xam ne du ñu am jàmm fu mu toll nii mm-hmm. boo xoolee rab moo fay nekk mooy waral kër gi ñu am jàmm. ko defee yaay ji day àtte ba sonn papa ji àtte ba sonn kenn tudd moroomam. fekk rab moo koy def ñooñu buñ leen ñaanalee ci kër gi wala defal leen fa ñaan dañuy daal di dem. gis ñoo xam ne seen kër day xat xatuk lan xéewal day jafe ci kër gi mhm. bu ñu xëyee gi mën naa am lu mat fukki nu di fay yeewoo mais bu ñu taal taal cin day jafe rek rab dina koy def mhm. dina war a nit ki ñàkk boo xoolee sax ñaaree nga gis kër yi nga xam ne day am ay yenn kii xàmb ak yooyu kër yu deltu ginnaaw lay doon mhm. nga gis kër yi nga xam ne alxuraan foy dund waaw kër gi leer gu yàlla fay nekk dangay xool tey ba demee màkk dangay xam ne fii yonent mu fi xam ne fii leerug yàlla mu ngi fi. Mhm. dem lu mel ni Touba gis nu mu dundee. Mhm. Touba dëkk la bu yàggul te fi mu ne mhm. boo xoolee moo dëkk nekk deuxième capital loolu yëpp da gis ne kon fu leer nekk day dund. fu lëndam nekk. day day bekkoor day deltu ginnaaw. dëgg gis dëkk yoo xam ne am nañ lépp. boo demee euh, mbay mi day nangu suuf si nangu. Euh, am nañ géej am dex. am sax ay ressources minières te da gis dañuy sonn mhm. parce que barke bi du ñëw si ñoom mhm. loolu léegi yëpp lu koy waral mooy ku ànd ak seytaan day ñàkkaloo nit mhm. ba pare da koy yóbbu ci mu dem ba am ay dépression du normal xolom dundam du neex waaw loolu am na solo sëñ bi léegi ñi nga xamante ne dañoo am rab rab di leen sonal comme di leen yàqal lépp lu ñu yaakaar duñ ko jot rab yi maanaam Sénégal léegi da lool dafay bëri rab daf mm-hmm. lay yàqal lu nekk mm-hmm. dangay gis nit ba nga xamante ne daf lay leer ni kii nitu wërsëg la waaye wërsëgam mënu see jot ndax rab mu ngi koy yàqal mm-hmm. nga gis jigéen ba nga xamante ne pour mu am jëkkër sax problème la ndax rab waaw am na jigéen ñoo xam ne sax bëgguñu dugg sëy parce que imagine jigéen bi nga xam ne chaque jour day sawlal kooku du bëgg a sëy ndax mm. du bëgg ko xamal boo ko bu ko defee koo bëgg tam boo demee wax ko takk daana man sëyuma mm-hmm. day gis mu dem ba am at yoo xam ne daanaka léegi mu xaw a ménopause mm-hmm. loolu normal gis jigéen boo xam ne ku mu bëgganteel da waa ji day yëg saag rek toog dootul ñëw mm-hmm. day tayal si relation bi su bëggee dem sax wala bëgg a jël téléphone am du mën a nekk rab dina koy def gis koo xam ne euh, li tax mënagul sëy mooy képp ku muy génne pour nga dajale loo ko yóbbu pour may gu njëkk sax doo ko mën doo ko mën a am mm-hmm. wala boo génn nit ki boo génn ki amee rab boo jógee ci ay tolof tolof ay feebar wala boo jógee ci feebar dal ci accident mm-hmm. boo jógee ci loolu dal ci ñàkk liggéey nga xam da nga daal di bàyyi da mm-hmm. nga xam ne kii seen wërsëg àndul yaa may dégg waaye yooyu yëpp ay xeetu kii la loolu de dëgg la sëñ bi léegi ku am tawtu yaram maanaam mm. ñi nga xamante ne dañoo amee problème mu tànk problème mu ndigg mm. yooyu noonu waaw bu dee ñooñu ndax yi ngay waral euh, dana am lu mel ni arthrose wala arthrite wala rhumatisme yooyu yëpp day waral ni kii di am problème yax wala ñi nga xam ne dañoo dem ba seen liquidu kii mag ñi dañ faral di am ñoom seen liquide mooy jeex mm-hmm. wala wàññeeku bu ko defee ñoom am na fi ay frotté ak lu leen di jox xam ne daf di mayaat loolu ñu manqué seen yaram. Mm-hmm. yooyu am na fi waaw. waaw ah, xam nga Sénégal dañoo am problème mu yàq. Mm-hmm. maanaam xale yu ndaw ngay dégg ñu lay jàmbat ndigg mm-hmm. ñi di jàmbat tànk. waaw ah, comme nag jàngoro jooju ku fi yegg si mu faju moom macha allah sëñ bi kon xam naa mën naa fi yebal samay xarit. am na ñu amee jàngoro ju mel noonu. yow sa daal mel dalaa a dalaale ndax. <laughs> ni nga waxee sëñ bi man rab moo sonal. <laughs> Ah, rab moo la sonal. moo tax boobu ba may waaw ah. ah, looloo tax may hésité si rajo. damaa damaa damaa jàppoon sax ne eh, problème yax yooyu daal ndax ni nga ko waxee. Mm-hmm. dafa mel ni da koo dund daal. <laughs> non damaa am ñu daal waaye man rab moom intéressé na moom macha allah. ñi si bëri dañu utal seen bopp rab. da mm-hmm. fekk bëgg àdduna moo leen jàpp. Mm-hmm. ndax ñi ñi leen di bëgg duñu leen bëgg. ñi bëgg duñu leen bëgg. xam ma bëgg xam moom de. xam naa li seen bët fa koy teg dañoo bëgg koo xam day fekk mu sotti ba pare. fekk am na lépp jigéen ñiy dugg sëy dañuy dugg après li fekk leen ci. Mm-hmm. en wax ne dama amee rab euh, ñàkkul ne gis na ko bëgg bu ko takk. Mm-hmm. waaye moom xeeb na ko ngir sëy ak moom. Mm-hmm. est-ce kon loolu daluma man. waaw loolu tam day am waaw loolu da koy gis. xam naa kon man yooyu ma yitteem lu dul ku ñëw mu faj en